bon salam alaykum boki ngi bon au fait je euh, bi ci Sénégal toujours euh, il faut le monopole de personne Manam, il faut que nous ba gëm ni nous la pour ñu gérer Sénégal pour ñu gérer Sénégal madame euh, li problème Sénégal il faut que nous ni la fi nekkal le monopole de personne ndaxte nit ñi dañuy laqatu ci Nous turu yalla bi nit ñi dañuy laqatu ci ginnaaw turu yalla bi manam di di neewal doole askan wi nous di profité ci kaw askan wi di seen kaw te du fenn euh, la fi nekkal il faut ñu dindi turu yàlla bi ci gestion Sénégal jëflante ko digante nit ak nit ndax ñun ay nit yi neen ñoko ko sekk te du yak dara ci sunu ngëm yalla ak sunu ngëm yonente ak sunu ak sunu ngëm sunu sëriñ loolu dafa war leer ben ndax da Sénégal da ngay gis ko xamante ni day ñëw fekk di doole yi jaay leen doole nangu seen alal te du mujj fenn boo waxee ñu ne ndogul yàlla la nga fekk nit nekk. mbokku président wala partisan président wala xaritu président dem dem dem dugg ci ay luxuru ñu jàpp ko ñu ne ndogalu yàlla la bu dee ñaari ñetti weer ñu génne ko te du mujj fenn nga fekk takk président dem fekk lieu public boo xamante ni ñëpp a bokk nga dem tabax fa sa kër boo waxee ñu ne ndogalu yàlla la boo ko kaasee ñu ne kii dafa soxot te loolu askan wi yëpp ko moom. président boo fal mu ñëw ak ay ak ay mbokkam ak ay nitam ak ay géwalam ak ay lawbeem ak ay woykatam ak ay mbërëm séddoo Sénégal ku ne mu daggal la suuf boo waxee ñu ne président moom may suuf te suuf si président may suufu askan wi la boo waxee ñu ne ndogalu yàlla la mais bu kon ne nii nit ñi fan lañ jëm nañ dindi turu yàlla bi ci li nga xamante ne mooy gestion Sénégal te du yàq lenn ci sunu njullit jëflante ko diggante nit ak nit boobu boobu muy benn ñaareel ba mooy yow Babacar Ngom nit nit su fekkente ni yàlla dalaa dimbali tànn la ci sa ci say biir mbokk dimbali la maanaam nga mën loo xamante ni ñu bari munuñu ko maanaam ñu nangul la it participer bi ngay participer si développement Sénégal parce que yaa ngi liggéeyloo ay jeunes sénégalais ñu yaakaar seen seen dund ci yow yow li nga waroon def instant bi nii mooy dem fekk baykatu ndengaleer yi defaral leen seen tool yi uddal leen ay tracteur dimbali leen te yàlla tax te doo ju xool benn revenu ñu mën a demal seen bopp yow ñoo xamante ni bañ juddoo ba léegi ci souffrance ak ay coono la ñuy dundoo yow ñoo xamante ni bañ jund bañ bañ bañ bañ bañ juddoo ba léegi pour ñu gis étage problème la yow ñoo xamante ni li ñuy sonn di ko daj ci coono di ci bay pour mu dundal leen ñoom problème la yow amoon leen loo def lu dul dem di xëccoog ñoom seen suuf yooyu maanaam pour toroxal leen gis ngeen euh, bu ñu naan baadoolo baadoolo du ku ñàkk Sénégal dañoo jàppale baadoolo mooy ki amul lum lekk amul lum na baadoolo mooy ki nga xamante ne yàlla dalaa may tànn la ci say biiri morom tànn la ci say biiri xarit tànn la ci say biir mbokk maanaam defal la loo xamante ne defal ko ci kenn nga wëlbatiku di xool maanaam lu ndaw li nit ki yor pour bëgg koo nangu teg ko ci li la yàlla may loolu mooy ak mbaadool la lii nii ku la ciy encouragé mi ngi la ci nax te Sénégal nañ bàyyi bu mbir xewee ñu naan na ci activité na ci activiste yi wax wala na ci sëriñ ci wax wala na ci président wala na ci keneen ak keneen mbir bu xewee mu leer na lii injustice la boo xamante ni ci kaw sénégalais yi la dal wala injustice la boo xamante ni dafa dal ci une partie des sénégalais maanaam na ñëpp jug takku takk seen digg taxaw xeex ko defal jëflante ko ndaxte li ngay taxaw di seetaan naan daluma ñeene la dal ëllëg mooy raam raam raam ba ñëw dal ci sa kaw te bu boobaa di nga bëgg ku dimbali wala ku la jàppale doo ko mën il faut ñu commencé am esprit ak mentalité maanaam bu injustice dalee ci kaw Sénégalais loo xamante ni du dëgg du yoon wala mu dal ci une partie une partie des Sénégalais na ñëpp jug àndandoo xeex ko loolu mooy dëgg nañ ci bañ di xaar kenn parce que gestion Sénégal ñun sénégalais yi ñoo ko war a gérer. ndaxte comme que ça fait ñaata at ñoom indépendance te ba léegi les même chose ba léegi les même chose ba léegi les même chose ñu taxaw di seetaan maanaam dafa olof Ndiaye dane ndëbin bu ree sa maam boo gisee lu ñuul danga nga war a daw te gis nga ñun nañ jënd complexe bi am suñu diggante ak ñi naan ñooy borom xaalis ak borom alali Sénégal maanaam complexe bi am suñu diggante mooy indi lii nii yëpp mooy indi lii nii yëpp ak ñun ñi nga xamante ni dañuy dem seen kër di lambar lambar yi ndax ay 2000 ak i 1000 francs wala xëy dem di rang ci seen saal yi di xaar pour ñu yeew di ñu may ay 1000 francs ki 2000 moo indi li yëpp moo tax il il ñoom dañuy yaakaar ni il peut tout se permettre fii ci biir réew mi loolu mooy problème bi liñ yor na leen ko bàyyee te buñ nang buñ naree jël liñ yor ñun ñu jug def lan ak ñoom c'est ça le débat nan leen bàyyi dem seen kër di lambar lambari yi ndax ay 1000 francs ki 2000 paa bi nekk Ndingler na dégg naa ko waa Ndingler dégg naa leen. ñooñu askan bu diñ lañ askan bu gëm seen bopp lañ ndax yow ñoo xamante ne yow leer na leen yow pour ñu gis pour ñu gis dix mille yu bokk buum wala vingt yu bokk buum por la ñu leen di corrompre ak deux millions ñu taxaw rejeté ko ñooñu askan bu jarañ naw lañ nañ leen jóg jël sunu loxo teg ko ci kaw gestion wu Sénégal ndax Sénégal ñu ñoo ko moom ñu ñoom ñoo ko bokk Babacar Ngom reculeel ci li nga bëgg a def nii reculeel parce que li ngay def nii. defoo ko tu le fais seulement au nom de tu es riche xaritu président nga wala xaritu ministre nga wala xaritu député la wala xaritu keneen ak keneen ak lu la yàlla may ak loo mën def Sénégal tu ne peux pas tout te permettre baax na jërëjëf na Sénégal yëpp jug taxaw ànd ak waa Ndengler deretu baadoola yi ngeen di naan di ko ŋàcc di ko def jus dafa doy franchement doy na yërëm leen askan wi trop c'est trop.